مولاي Diva One TV La lumière de la Tijania Moi, Maodo bi muy bind téere bi daf ko bind de leer moo tax pour nga dégg téere bi dafa am jafe-jafe pour nga dégg ko parce que leer moom moo mën a dégg xilaas saa fii sa xel daan na wax moom Seydi Hadj Malick man xaw ma kañ lay dégg sama téere bi man Maodo werante yi am ci xam-xam yépp boo ñëwee ci siira Seydi Hadj Malick daf ko jàngale ci biir mi mais dafa am lu ñu tuddee al udalaat ay tënk ay ay jam yu yéeme yu nekk ci biir mi yëpp xoolal ci amma boo demee ci ibnu malik danaan la amma ka mahma yaku min shay'i wa faali tilwi tilwiha wujuban waqaa أما لتي أبدا أنا فا أما بعد فيا أيها الناس الله يجمعني أما علم بلا شك قد التقيا إنه الفاقي parce que lu tax bëgg na la jàngal ni fan la am maa di ñëwee te indi fa te loolu dafa dëppoo ak aaya alxuraan te di xaaj maa la ñëw jàngale ko jawharatul kamal fukki per ak ñaar lañ koy jàng douze per yooyu moo tolloog la ilaha illallah moo tolloog xarafi muhammad rasulullah mais ndeke leeru Seydina Muhammad processus bi ñu ko doon jaaralee fukki leer la ak ñaar wa kaana muxtajiban min qablu fii xujubin yusabbihu laa fiha gayri mutasimi wa kullu xujabin aqaama al badru parce que leeru Muhammad ay fuur lañ ko doon dugal fuur yoo ay tur yàlla la di ko maanaam di ko di ko tarbiya yenn saa yi bi jàpp ko ba nga xam ne dañuy foog ni léegi mu xam wala mu ñu daw ko ci ndox yi ndox yooyu fukki ndox la manque na deux ndox pour mu tolloo ko xijaab bi loolu nag secret moo tax wax waxaatewoon ab xoran yaa an biha sabaxal jamia sëriñ Cheikh nee na bu ñu tàngalee róogi tarbiyee ko ba róogi bëgg a day rek ñu dugal ko ci ndox yi génne war kooku mooy fukki géej yooyu moo war nañ ko jàngale ci biir mimir muy xilaasu sax fi seet xëy na c'est-à-dire xaj Malick li daan jaaxal ni ñëpp bi muy bind mimir Aminatu bintu Wahb bi bokkul woon ci téere bi jàngalewul yaay ci parce que mimi seigne babacar si daf ci am yo xam daf ni seydi haj mali ah, ndax doom may yi ñu defarat ko ya ghaidal bahri la alaj mali bu ndon يا غائض البحر للأصداف عندي أصداف بها درة سيد بابا كان يقول كم كم جيج ورس فم نيك دفا سوري تي خالي دنجي جانج بس كي يالا ماي من من من من من دوخ رك يالا ماي كمو جالي لي تي بير جين نيكو كي يالا ماي خم خم mën na bañ a sonn indi xam-xam bu jafe mais ki yàlla mayul pour mu indi xam-xam fokk mu xóot ci biir téere yi nuur pour mën a génne alaaj Maalik wax na yaa ma yaa xaaidal baxari yow mi nga xam ne mooy alaaj Maalik dafa jël beneen jëmm alaaj Maalik di wax ak moom looloo indi Muhammad Busiri naan naan amin da dakkuri jiraani bisa mazaj tadama an Busiri beneen Busiri lay waxal mais waxu la keneen alaaj Maalik itam moom bi muy wax ni kiy indi ci xilaas dafa ne jili jarul xuus parce que leeru yàlla lay waxee moo tax yow mi temp sëñ Babacar ne comme xale yi dañuy ñëw te dañuy nekk ay intellectuel bàyyi ma indi ci baatoo raait ma def ko raais yaa raais al bahri lil asda ma war ne ko bàyyi kon d'accord bi Aboubacar di ànd Seydina Mahamad di dem Màkk Seydi Ahmed dafa bi yàq yàq yi jëxatee sitta da ko doon défendre juróom benn côté yi sëñ Babacar ni ko waaw su fekkee da nga ni juróom-benn côté yi la Aboubacar doon garde yonte bi nday jot caa mooy kanam ginnaaw mais kaw ak suuf nag nan la ciy garde Seydina Mahamad mu ne ko kon d'accord defal ko mu ne ko jeexati hiddaa la sëñ Babacar moo ko ci yokk aminatu bintu wax bi diwaan bi demoon Égypte ñëwul ci te diwan bi sëñ Babacar ne ko boo tuddee néegu bàyyi nga xanaa war a tudd néegu ndey ci la doole war aminatu bintu wax bi ibnu Abdu Manaaf xilaas bi jaar mimi yëpp fekk li jaxasoo ci siira mais ci jam ci ci jafe-jafe mii mii andi ko ba pare nag jàngale leeru leeru Seydina Muhammad à travers lumièru mii ya. moo tax mii mii ya, Maodo bi mu ko bindee daf ko yónnee ci këru kilifa yu bari ni leen lii laa def ci Seydina Muhammad comme samay nawle ngeen samay mbokki daara ngeen xool leen ko xaal di ma jaxate kala bi ko Seydi Hadj Malick yónnee bosam perkaal la wut xool téere bi yër ko ba pare lëmas ci perkaal jël téer bi teg ci kaw lalam ni wóor na ko ni lan yont bi dootul nekk ci kaw lalam muy tëdd ci kaw lal moo tax yenn saa nga gis xale yi jamono dox naan xilaasu zahab dañ ko doon corriger dañ cee war a def non dimension Maodo moo kawe Serigne Babacar Sy kenn mënu ko jam ci xam-xam ba naane te bu ñëwee ci bindam dañuy xam ne moo Babacar si xam-xam ci moom la ni ko Thierno Seydou Nourou moo ni sëñ Babacar moo raw ku weex ak ku ñuul El Hadj Abdoul Aziz Dabakh xam-xamam kenn du ko nantam la kooku du maanaam bind bu juum du romb El Hadj doomi sëriñ ba Hadj Malick di jàll feneen ñu koy defal. nit mën naa gàgge feneen gàggante ko si ci kër Maodo mais bu kër Maodo bu ñooñu gàggee amul ko leen di gàggante ci àdduna maam Xaaji Mansour nga xam ni yeggoon na ci bi muy arab maanaam bi muy bind lettre arab muy jommal borom xam-xam yi dañ ko laaj mais yow Seydi Xaaji Maalik bind nii arab yi lan la mu ne ki ma jàngal ci boppam dafa raw ci àdduna moo tax samay arab mel moom xaaj Mansour bi ko góor shérif bi laaj kuy Seydi Xaaji Maalik dafa ne ayaman yarumu shafa saqam وحاليا من اللؤلؤ المنظم باخبار شيخ رويدا وصل خبير به ثم قل لي نعم بدون ما حاج منصور بوكو غيسه سا ادو دو توكي مي بو جيل لي ньоني نييو سي سين سدي سيرن منصور بروم دار جالا يوك ليرام مساله دو دو تي موم غوكاي دو نييو تي موم سيرن منصور موك نان ياغي كوروجي بنت سيرن منصور ولا بنت سيرن حاج ما تي كارام شيخ احمد تيجان سي دمكو جيل كروك بيم بيم سيرن بابكر يابالي نياري مخدم ñu dem dëj ñëw sëñ Cheikh bind bi xudu bi xel lay jël wafa def xasida bayit góor gi ne ko bi bi xudu mi xel lay waxoon wax jël wafa zul wafa nga waroon wax sëñ Cheikh ne ko fa zul wafa lay sa naatan innama mudaafun saahi fastabini zi jooju du mudaaf du naatu mudaaf la aywa sëriñ Xaaji Maalik nag jël miimii bi nag toppe ko noonu toppe ko noonu am na ci buntu mi yoo xam ne kenn du ko xalaata waxtaane parce que lu tax dimension bi ko Alaaji Maalik bindee la kenn dul fooye boo demee ci wal fatimatu lawaati xad walad na biha umu zabihin wa amrin jaddihil ah ku ko jàngalul maanaam doo dégg sax néew na nga dégg bu ko song parce que li Alaaji indi foofu waa awaatigi innal awaatiga adduhunna kama athir yebun fukki aatika ak ñaar yoo xam ni ay jeeg jànq lañu woon alaaj Malick décortiqué indi leen boo demee ci téere Ibnul Athir 32 tomes la yoo xam ne ci la alaaj Malick dem wut génne awaatir yooyu pour mën koo jëriñu am na góor gu nekkoon paal day jàngale mii mi ba ci fusta baatu fusta dana ñëw ci sama xel bu mu ngi biir bunt boobu mu jël train nii da koy laaj sëñ Babacar fusta ji lan la ci alaaji Malick jublu parce que amul chance ci bi muy wax ci drapeau yi naka la wàcc ci gaar bi wàcc waaxu ñëw saalu sëñ Babacar mu mu ne ko alaaj mu ne ko diw mu ne ko ah mu ne ko mbaa du fus sëjee la kooku tat mi mul bayti la rek la ca toll sëñ Babacar xam na ni baatu fusta lay laajte si mu tontu ko avant muy agsi mu duggaat terrain delluwaat paal jotul toog jotul simmi daal jotul toog kon alaaj Malick bis sëñ Babacar toog na suba ba tisbaar yor xaal xaal bu méttee ñu ne ko la mun seen baytu xasir maam bi muy miim yi rek moo ma jàpp ci benn bayt jabal huda suma ba wal bahaada man hamdu loolu nag ci la sëñ Babacar nag def ci xasiri bi ji bëgg a dund junj tuuti yaa man ataa bi xilaasin faiqan duranan qad jita ma yujibu sudana wal xuraa mun yaa man ataa bi xilaasin yaa wana man nitu yàlla ba nga xam ne man wana guru góoru yàlla nga man wana naa wayjur ba nga man wana naa professeur ba nga xam ne ataa bi xilaasin waxul jaa bi xilaas waaye du ko nangu mais mu ne parce que ata amrullahi fala tastaajiluhu kooku beneen cadre la boo xam ne même ñoom bu ñuy bind dañuy sàmmanteeg lowatul xuraan mu ne nga indi xilaas boo xam ne duraran dafa kawe wurusu duru ci rafet nga xam ne xat yow sëñ maam li nga indi indi nga lo xamni ma maa yuajabu wal ghurara ne nit ku ñuul ak ku wex yeb mi khilas bi nga indi dana leen yéem parce que tëggin wi ak bind wi mu ni ko sëyanta rafetal nga ala khairil bariyati man xad andala allah mi akaami min abdahihi suwara mu ni alquran bi nga xam dafa ñëw tagg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam inna naa samiana munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna na ñaare ñaare munaadi moo am ala ala wajhil haqiqa ak ala wajhil majaz boo ko delloo ci haqiqa mu dellu Seydina Muhammad mais boo ko delloo ci majaz mu dellu ci alxuraan karim mu ne ko ne xadde suuxta fii siratil muxtaari shafii naa tëgg nga ci jaar-jaaru Seydina Muhammad mi ñu ramoo ëllëg maa yuxjilul jawhara wal yaquuta wa durara nee na wurus jawhara li muy rafet rafet bu taxawee ci kanamu xelaas xelaas dana ko woon taar boo xam ne jawhar day mujj rus yaquut wurus bu xonq la ni muy rafet rafet bu taxawee ci ci rafetaay bi bi miin yi rafet day rus mais li fa ma jëm du du lii lépp wa ma ataa xaalisul ibrisi majlisahu dural yatimi lada arjaihi ata kam jita bidaan wa toayi fi madaihi ahla qaraihi kam afhamta man shuara nee na ko waykat yi sax wedam nañ boo indi mii mbi mel waaye nag li ma ci li li tax dëgg nag xasida bi tax daf ko ne addayta farda madixin summa naafilatin wa anta taqtabisul anwaara wala athara ndekete tagg yonte bi dafa am fu mu nekkee farata am fu mu nekkee naafila parce que fa madxu rasulillahi ahmadu oddati la alaaji abdu waay bihi naa la maa naa la rijaalu maratiban min almaliki alaama jalal ani soxri nee na bihi ci tagg seydina Muhammad naala la amee ar rijaalu góor yàlla yi muy ñeent rijaalu zahir rijaalul batin rijaalul hadd ak rijaalul muttalaa góor yàlla yi ñi ngi amee yenn martaba ci tagg Seydina Muhammad te am martaba di farata kon nga tagg yont bi ci benn martaba bu la yéege ca yàlla nga yëg ne yàlla tey mën nañ ni la mu kale mooy yàlla du jàng alquran yàlla du taxaw di naafila yàlla du joxe azaka yàlla du aji màkk mais yàlla leen rek lay def mooy julli ci seydina muhammad inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatu li yuxrijukum min azulumati ila nur ak inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ñaar yi ñoom ñoo am bii ak bële yépp benn bu nekk bokkul fa mu jëm mu joxe ordre nag ni yaa amanu sallu mu ni kon nag muhammad dafa am fu mu nekkee farata mu ne ko dayta farda madixin kon cadre bi ngay taggee yonante bi mu nekk farata sëñ Babacar Si junj ko ko summa naafila ak cadre bi ngay taggee Seydina Muhammad mu nekk naafila kon wa anta taqtabisul anwaar yaa ngi xëcc leeri mu dellu ci fardul madix mais wala asara mu dellu ci naafilatul madix waaye loolu ci yéeme xam nga xilaas ak xaalis moo tax bëri na ñuy liggéey yoonu xilaas ni mu ni burdatul madix amee euh, euh, euh, burd baat bayit bu ne nga faj ci soxla àdduna ak àllaaxira Alaaji Malik bi mu eggee ci xaal dafa fexe ba baytu xilaas bu ne nga di ci faj soxla aajo bu gaaw ci xiraasu zahab fi seeta xeeri ala parce que yonente bi saa salaam mooy buntu yàlla fa anta baabullahi ay yumri in ataahu min xeyrika laa yadxulu kon xul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah yonte bi nee na su ngeen bëgg yàlla bëgg leen man ngeen di jaar ya bu ngeen ma bëggee yàlla bëgg leen kon soxla boo ko amee jaar ko Seydina Muhammad yàlla moom ma koy faj parce que lu yonte bi bëgg rek yàlla nangu moo tax yaa ayyuhal mudammilu xum yaa ayyuhal mudassiru xum ñaari xum yooyu eh, Maodo indi ko noonu cent quarante yooyu ngay gis boo toolee mooy toolu ilm ilm cent la boo jëlee eh, eh, li tax moo doo nëbb foofu ilm ci ci ci ci ci xam ku mu xam ne yaa ngi amee ana madinatul ilmi waaw Alioune Baba boo jëlee madin eh, al ilm lam lim ba mu lay jox day dellu si waat ci lycée de Hadj Malick di nëbb moo tax nag mu ni ko nag téere yépp yi daan joxe muy siratu xalabiya la laduniya الشفاء مودو سي باب كان ان الشفاء شفاء لصدور فلم تبقي الحوائج في يعقوب حيث جرى شفاء جانغالينا با جانغاليني يونت يالا موسى بكو يالا دي فيو غيسنا مولاي صلي وسلم دائما une TV, la lumière de la Tijania.